nga yi mu àndal yépp ah tey dañuy delloo buntu daara ji doonte tëjul durant mois du ramadan bi yépp ñu doon def vingt sixième édition bu jaamiatu ramadan doon defit troisième édition bu colisée jaamiatu ramadan bi thème central bi nekkoon les dimensions du Coran nga xam ne dañ koo tànqe ci njàngaleem Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ci discours bi mu defoon ci mawlid bi alquran kitaaban maaluman wa marquman wa mastuuran ñu amoon ci ay thèmes yu bari yoo xam ne doon nañu nafar njàngaleem ak déggina ci alquran yàlla dogal na ay asatisa yu bari jaar nañ fi ay boroom xam-xam jaar nañ fi di leeral waaye lépp benn delluwaay la am benn masdar la am benn manbaa la am mooy taalimu al murshid saydi wa mawlaaya cheikh Mouhamadul Moustapha Sy maamam Serigne Babacar Sy radiallahu anhu dafay way Seydil Hadji Malick di ko wax ne ko wa nasabta fi arasatihim qiyam ad-diya inna al-ghawaamida malabu subyaani nee na ko yow yaa jël ay tànti leer nga samp ko ci Tiwaawan ba ku fa ñëwati doo gëlëm da nga gindiku mu mel ne xiyamu diya yooyu moom la sëñ Moustapha Sy jëmmalaat à travers tant bi ak tant yële xiyamu diya yoo xam ne ku fi ñëw naan al arrabbaani assaafi boo xam ne dana setal sa xol setal sa ruux setal sa xel fa jazaahu llahu an alislaami wa an daairati almustarshidin wa an altariqati wa an alummati alislaamiyati xayra kon cant gi moom moo ci jiitu ndax occasion bii bu ñu ko amee yàlla ak yitteem la ak taxawaayam la damay faral di wax ne yittey ruux moo mën kilifa nekk ci biir di conditionné ruux yi di conditionné xel yi di conditionné xol yi di leen yar nga yëg ne yaa ngi yokk di avancé donte moom génnul loolu nag yittey ruux moo ko mën a maye fa jazaahu llahu an il islaami xayra comme dañuy bañ a xaabaabal ñu bari jaar nañ fi mën nañ see tudd professeur Xumma jaar na fi professeur Jima Ousmane Dramé jaar na fi professeur Oustaz Samba Diop jaar na fi professeur Cheikh Tidiane Sarr jaar na fi professeur Oustaz Babacar Diop jaar na fi ak yeneeni asatisa yoo xam ne ku ci nekk indi nga sa déggin ci biir alquran waaye surtout mbokk daaram mbokkam Oustaz Hadi Niass nga xam ne yamul ci def kuur waaye dafa def xasida boole ko ci mu mel ne dafa dundalaat la xewoon ca Kawlax démb ba fa Serigne Cheikh demee ñu ñu teeroo ko xasida farihal bilaadu bi maqdami tijaani loola moom la Serigne Hadi Niass delloo si waat Serigne Moustapha ci biir jaamiatu Ramadan kon loolu it il faut ñu seede ko ñi ci mujj mooy plateau bi nga xam ne suñu mbokk Cheikh Tidiane yu moo ko doon présider te docteur Mounirou Ndiaye ak oustaz maxtar kebe defoon ko mu dellu woon ci njàngale économie ak politique ci biir alquran kon daal ci tënk lii moo nekkoon li nga xam ne moo doon programme jaamia bi tey nag sëriñ bi am na fi gan ñu tedd yoo xam ne rot si nañ ci jógee jaamal te oustaz Babacar Cissé jiite leen ñu ñëw ne dañ lay ndokkale ci bés bi sëriñ Saliou Touré bu Cees di sa wayjur di sa soppe yabal na doomam muy Saaliwu Ture moom it mu teew si ci jataay bi ngir yàlla ak bokk ak yow bés bi oustaz Modou Fall oustaz Mansour Diop ñoom it ñëw nañu ci jataay bi sëriñ Babacar Kañ gi moom it jógee ba suñu maam Cerno Kañ gi ca Jurbel moom it teew na ci jataay bi ñi ci des ay autorité politique lañ di ay maire di ay député à l'Assemblée nationale ñoom ñëpp teew nañ ci jataay bi ngir yàlla ak sa jëmm dañ doon bañ a xaabaabal rek loolu lañ doon tijjee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ci teew ñépp di leen ziar di leen baalu te di leen balaax ah, di leen ndokkeel ci guddi gi di leen ndokkeel ci weer ah kàddu gi sax jax te guddal ndax yaakaar naa du ma ne guddi gi am na borom waaye xol yi am na borom te am na jëmm joo xam ni ku mu teew sa kanam nga yëg ni sa xol wér na nga yëg ni sa xel yaatu na nga yëg ni sa ruux wér na kon nag jarul xaabaabal si sa njaboot a ngi nii amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen ñëpp law nañ la si kon nag di ñaan rek bu ko kenn déranger bu ko kenn dog ndax noppeem sax mooy suñu njëriñ ñun ñëpp kon nag si ñu bàyyi la nga indi jàngale yi incha allah indi njëriñ bi ci barke man ni incha allah yàlla yàlla dolli yëpp si incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah السلام عليكم بارك الله ñu ngi nuyu sang yi fi teew yëpp sangu yu ak sangu yu jigéen nuyu sunu gan yi fi ñëw te oustaz Cheikh tudd na leen ci waxtaanam yi tomb responsable politique yi fi ñëw yëpp tabarakallahu moom ñi ko moom wax nañu li ne woon farata ndax ñaar moo fi amoon muy jamiatu ramadan di université ramadan ak colisée de l'éveil bu Cheikh na Tijaani capitaine waaw ma defe ni nag boobaak léegi li fi génne ci xam-xam oustaz yi ñu joxoon dem yi waxtaane ko ak seen nattango professeur yu jóge ci université yi ma defe ni lu nit di wuute ci amul ndax bu dee xam-xam li fi génn dootul génn feneen kon nag mënoon nañu yem foofu xëy na ñun sax dañoo ñëw pour xaaraan si waaw ni mënuñu leen wax lu mu leen waxul moom ndax ci daara bi ma jànge ca daara jooju la jànge waaw waaw dafa tolloog nag daan nañu miin ñu naan diw sama magu daara la waaw ñun seen magu daara rekk lañu waaw ñuy def seen apprentissage ñu di leen encourager fa tabaarakallaahu ah seen way juri bopp yi ñu ngi fi toog man damay faral di wax ni seen bokku pas-pas rekk ah. ma defe ni itam ida kamula naqasa ma zaada alayhi lu xas mët loo ca dolli mu tuur te bu ndox tuuroo nag an bàq fa des waaw xëy na tudd nañu laylatul qadr bu dee ci ñi ak seen bopp ci weer wi laylatul qadr altine bu dee ci ñun ñi ñu yar ci xaqiqa nag kullu laylati laylatul waaw kullu layaali laylatu qadrin indanat kama anna kulla ayaami liqa yowmu jumaati waaw kooku Ibnul Farid moo ko waxoon nee na guddi yépp guddi laylatul qadr la mu ni bés yi gor yépp di tasee di ca fàttaliku seen boroom bés yooyu yépp bisu àjjuma la waaw moo tax am na ñoo xam ni amuñu bés bu particulier waaw lu ñu jàpp rekk yàlla jàpp na ko waaw bu ko defee nag xanaa li mu nekk baaxantal rek te dañu jàpp ni altine bi ah waa kër zawiya Seydil Hadj Malick ak waa zawiya Serigne Babacar ci altine bi la ñuy def te bëgguñu déranger waaw ñu bëggoon rekk doonte benn baat la walla ñaar ñu bokk ko ak yéen rekk ci mbaaxu yàlla ak ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla nag moo waxal boppam ci alquran inna anzalnaahu fi laylatil qadr ñi ko firi wax nañu ni alquran la ci jublu waaye am na ci nitu yàlla yi ñu gëm leneen parce que bala ngay indi laylatul qadr ci alquran fokk nga indi laylatul qadr ci jaam yi parce que am na lu ñoo tuddee laylatu qadril ibaad jaam yi seen laylatul qadr pour lan la kooku borom sharia yi ñoo ko tudd am na lu ñoo tuddee laylatu qadril murid boroom xaqiiqa yi ñoo ko tudd bu ci ne pour lan la xam nga sunu boroom en permanence dafay faral di def révision révision de procès mais révision de peine waaw te moo di li ñu àtte woon ñi tëdd ci bàmmeel yi ba àdduna di àdduna ba léegi est yàlla day bàyyi noonu wala daf koy revoiraat revoir boobu muy xoolaat seen jugement n'a rien à voir ak le jugement dernier ndax am na ci ñoo xam ni ñu ngi ci seen bàmmeel te ñu ngi leen di mbugal ce qui veut que am na peine bu ñu leen teg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa romb na ñaari bàmmeel ñaa ñaari bàmmeel yi di seen borom ñu ngi leen di mbugal ñu ni ko lu waral ñu di leen mbugal mu ni kenn ki dafa tàmm di fumiste nit ñi bu ñëwee ci kii wax ko lii dem ci keneen wax ko leneen pour ko ñoom ñaar kenn dootu ci wóolu morom bi genre fumisterie boobu am ñoo xam ni seen dund yépp ci loolu lañ ko passé ñu ni ko ki ci des nag mu ni ki ci des dafay def bu daan tur ndox ci mbedd du am sutura ci boppam day janloo fi nit ñi di rombe nit ñi jàkkarloo ak ay awraam loo tax ñu di ko mbugal ci bàmmeel waaw ñu waaw lan la ñu war a mën a def pour wàññi mbugal bi mu ne na ngeen leen jëmbatal garab waaw wàllu reboisement yi ñuy wax yépp li ci ëpp doole foofu la commencé mu ne nañ leen jëmbatal garab te fexe ba garab gi bañ a dee ma defe ni nag bu garab ma ne suqali nit ci bàmmeel ñaan war ko man dëgg la walla du dëgg waaye ñaan itam doo toog ba jaaxle da nga koy def ba dara xewagul ndax yàlla am fu mu sukkandiku ak mim lana nuurana واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم waaw ku ko wax yàlla gëw ni pexe amati waaw waaye pour révision boobu fekk malaaka yi def nañu seen liggéey ba noppi ficelé nañu dossier yëpp yóbbu ko fañ ko war a waaye yàlla nag yàlla la du juge kese kese du magistrat kese kese du procureur kese kese du avocat kese kese mooy rabbul alamin waaye moo war a tax nga war ko wattu mooy façon bi Seydil Hadj Malick waxee pour artu nit ñi wa nafidun xaakimun fiina iradatuhu kama yashaau wa jalla allahu lallahu léeg-léeg ma dégg sax yenn nati ustaas yi di ko firi xaw ma nag man la sama àlluwa sorewul mais foog nga dégg waxinu Maodo boo tëbee tëb ni wanaafidun rek da ngay daanu waaw da nga naan وعلمه حاكم waaw kay waaw pour wax la maanaa sunu borom mooy wane ni qadaa'uhu verdigam naafidun lu bari sañ-sañ la wa ilmuhu xam-xamam bi mu xame lépp xaakimun ku miin tëralu àtte la kon nag iradatuhu verdigam fii na ci ñun jaam yi kama yashaaw waaw ci machi am la aju ndax machi abi mooy def jugement bi waaye nag wa jalla allahu yàlla ëpp na di tooñ jaam wa rabbuka bi dallamin lil abid waaw waaw la demee moo tax buy def révision bi ñeent yooyu yëpp dañuy taxaw qada bi day taxaw ilm bi day taxaw iraada bi day taxaw machia bi taxaw lu bokkul nag ak jury bi mais jury bi ci seen bopp it ñi yàllay tànn ñëpp ay témoins à décharge lañu duñu ay témoins à charge comme dafa bëgg a yërëm te bëgg a wàññi peine yi du jël borom gabar yi waaw moo tax bu ngeen demee ci seen taysiir yi Maodo wax yépp ñoom taw waa boog ñoom xafuurook ñoom xafuwook waaw ya noonu yëpp xaliimu sabuuru waaw wahaabu razaaku fattaaxu waaw yooyu yëpp ay témoins à décharge lañu waaw fukk ak juróom-ñeent lañu yoo xam ni ñoom lay féetalee jury bi bu ko defee nag cher tëdd kenn mësul gis lool kenn ku nekk li nga représenté en tant que tur ak autorité bi la yàlla jox booy intervenir ci discussion bi am ci biir jury bi ca cadre boobu ca ngay intervenir turu latif bi dellu ci lutfu yàlla lu tax yàlla ñeewant waaw waaw bi te mooy ku lewet waaw moom it wax lu tax yàlla lewet waaw ku ci ne sabuuru bokkul ak sabir sabuuru mooy koo xam ni tooñ réewu ko ba dépassé muñam azizu na ko góor gi fiire woon mu ne azizu mooy koo xam ni lu sa fayu woyof woyof woyof xajul ci kenn te ku saw fayu xajul ci kenn nag waratuloo fayu waaw topp ko noonu ba fukki tur yi ak juróom-ñeent waaw bu doon ñoom firaaw na la ñoom la concerné du utiliser tur yooyu mukk du tudd latif du tudd xalim waaw du tudd fattaax waaw du tudd razaq waaw yooyu yëpp gafuur bu dee ñu doy waar ñi mutakabbir lay jël waaw jabbaar lay jël mutaali lay jël qaxaaru lay jël waaw yooyu lay jël parce que comme ñooñu dañ ko doon songu di wane ni du seen yàlla fokk mu wan leen ca bés ba lu ñu nangoo mooy seen yàlla waaw waaye gis nga sunu borom ak mando gi ba tey ba tey ak nit ñaan ñaanam ak dana ko ni sax waaw jury bi presque à l'unanimité demandé na pour ñu defal la grâce mais yow nag loo xalaat Seydil Hadji Malick moo fekke révision ba moom Maodo bi yàlla laajee jàmm bi loo xalaat mu ni ko abdun dalilun faqirun xaashiun wajilun zu jazaain aasifun yallaahu yallaahu ilayka maddal yadaa رجاء مغفرة هب لي مسامحة يا الله يا الله yàlla ne loolu di kenn mënu ci teg dara mu ni suuf ci yow la jaam yi doon dunde yow loo xalaat mu ni ko man lu ma xalaat mu ni ko waaw ah, mu ni ko yaxfir li ummati mu ni ko aa ah, ah. mu ni ko waaw waaw warxam bi ummatihi wastur laha wajburanha rabbi allahu waaw mu ne ah loolu de awma lu ma ci teg waaye kon ma laaj asamaan comme mook suufa ko seq naka lay laaj asamaan nekk junjum yi rëkk rabbun tabaraka waaw waaw aw rabbun taqaddasa aw rabbun taala uluwan rabbi allah ndax beneen solution mën naa am te am na ñu mu yabal ci suuf ñu def enquête pour nit ki ñi dundandoog moom lu ñu xalaat ndax dañ koy versé ci dossier bi waaw ñu yónni ah waaw diw yow diw bi ngeen nekkee loo xalaat ci moom mu ne ah man daal xam naa ni jamono bu ne bu dara xewee dana ñëw ni ma bal ma àq mbayit mënu ko bal ma ñu bokk ñun ñaar ni nañu yàlla boole baal malaaka bi ñëw jël ci interview bi noté na yàlla nañu yàlla boole baal ñu laaj keneen ni ko loo xam ne ah wax dëgg yàlla lu xew mu ñëw ni ma déwénati ma ne ko fekkeel déwén ma xam ni yéene ma ma dund ba déwén waaw waaw malaaka boobu noté loolu versé ko ci dossier bi ñu laaj daan naa def di léeg-léeg bu dara xewee rawatina ci koor yeeg yi ma jël àndaaru dugub yónnee ko waaye bu ma ko yónnee la mu cay teg mooy yàlla na la war déwén waaw te yàlla la war déwén mooy yàlla boo ko ñàkk te yàlla bàyyi la fi nga di ko man ku ñu laaj rek ku nekk ak version ba mu joxe ñu versé ko ci dossier bi waaw pour wax la yàlla fi muy jaar ak jaam yi ku yóbbu di deey rek yóbbu ndongo la de waaw ndax am na nu mu waxee ci alquran ku def lii ma def lii ñi mel nii ma dugal leen fii mais bul gaawantu maa ngi dégg Serigne Cheikh ci benn waxtaanam ci Demba Diop mu wax ni xaar yàlla aljanna nee na ci télé la bokk ndax nee na ñi fi jóge ñëpp dem bàmmeel amu ci kenn kuñ la wax ni la fii la ne xamoo ci ñoom dara ne moo tax kon nag loo mën a rafetal ci sa àdduna commencé rafetal rek boo fekkee yàlla nag la nga yaakaar nga fekk ko fa fa xayru waaw waaye gis nga loolu moo jëm ci leylatu qadril mara wala laylatu qadril ibaad borom sharia yi ñoo ko décrété mu des nag laylatu qadril borom xaqiqa yi ñoo ko décrété parce que gis ni nit ni muy kàllefe bu dee sharia du noonu lay kàllefe bu dee xaqiqa ñaari kàllaf yu bokkul côté sharia bu fekkee ni da ngay kàllaf ci lañ lay soog a teg lu ne lu ne ñu ni la war na ndax léegi kàllaf nga ci sharia mais boo kàllafee ci xaqiqa boo yegg ci kàllaf gi luñ la tegoon daf lay wàcc kenn dootu la digal dara yaay tànnal sa mais pour nga kallaf ci xaqiqa parce bu dee sharia wax nañ la boo yëgee nga am ay karaw ci place sàngam wala place sàngam wala nga am fukki at ak ñett nangam nangam yooyu yëpp ñu ne la léegi kallaf nga ci sharia mais bu dee xaqiqa dafa am neuf yoo xam ni boo jox jeexalee neuf étapes yi la yàllay ñaan am ñu daje te mooy conférence des élus yàlla dafa def ñettee standard benn standard bi mu tudde ko mulk beneen standard bi mu tudde ko malakut beneen standard bi mu tudde ko jabarut ñetti standard yi ku ci ne jox na la ñett pour que nga mën leen connecté mu mel ni Serigne capitaine tudd na leen baatu transmetteur keroog bi mu leen di wax ci nuuru minan nuur donc ñetti standard yi mulk ak émetteur dañ ko ñaan mu connecté ñett bu jëkk bi mooy na connecté sharia bu ñaareel bi mooy na connecté al islam bu ñetteel bi mooy mu connecté yaram kon sharia lépp lu mu jële ci mulk na fexe ba lislaam jot ci lislaam lu mu jële ci sharia na fexe ba yaram jot ci moo tax ñu ñu féetale ko julli féetale ko azaka féetale ko koor féetale ko aj ndax moo leen fay féete moom daal na fexe ba ñetti yi mu connecté leen malakuut yàlla moom it ñaan ko pour mu connecté ñett bu jëkk bii ni mooy ne connecté li ñoo tuddee tariqa tariqa mu ñaan ko mu connecté li ñoo tuddee al iman ñu ñaan ko mu connecté li ñoo tuddee al qalb te xol mu def nag jabarut jabarut moom itam yàlla def ko ñaan mu connecté li ñoo tudde alxaqiqa xaqiqa ñu ñaan ko mu connecté li ñoo tudde al ihsan al ihsan ñu ñaan ko mu connecté li ñoo tudde al ruux gis nga bala ngay yegg bay kàllaf ci xaqiqa foog nga jeexal juróom-ñeent boo ko toppee noonu mën nga ko bañ dégg mais da koy def par ligne ligne bu njëkk bi sharia la tariqa xaqiqa ñu ñaareel bi al islam al iman al ihsan ligne ñetteel bi al jism al qalb al ruux waaw waaw boo matalee juróom-ñeenti yooyu nag ba conférence des élus dajaloo ni nangu nañ ni kallaf nga ci xaqiqa bu boobaa kenn dootu la teg dara yaay choisiral sa bopp mais ñu ne la na nga bàyyi xel ni dese nga mille six cent cinquante huit combinaison mille six cent cinquante huit combinaison yu nga xam ni code ya sunu borom nee na man rek maa xam ku ma kuddeeyul mënoo ci jot wa indahu mafatixul xayb la yaalamuha bu ko defee ci biir loolu combinaison yooyu le comme li capitaine tudd ci baatu transmetteur transmetteur yi sax mënul def liggéeyam fekk transcodeur bi jiituwul ba noppi waaw mais transcodeur bi nga xam ni moo yilif yi ci des mooy annubuwa waaw annubuwa mooy transcodeur bu mag bi alwaxy moo nekk carte mémoire bi loo bëgg a firi fii foog nga dem ci wax yu mu firi ko kon nag law la nubuwatu minka wal waxyu alladi ajazat bi derki tawilihi alxukkaamu sa turandoo ma wax boobu waaw waaw waaw looluy tax charte gis nga am na ñu nga xam ni yi ñuy jàng fii du ko expliquer jamais parce que baatu nubuwa boobu mënuloo ko firi dëgg dëgg dëgg te firiwuloo ñaar fokk nga firi rañaan gi foog nga firi gàddaay gi mais rañaan gi ak gàddaay gi du yi ngeen di jàng ci siira de bokkul rañaan bu ci yonent bi njëkk a min al masjid al haram al ghaybi ila boobu moo jiitu ñu jële ruuxu yonent bi mu jóge xayb pour mu ñëw nag def li ñu tudde visite des lieux te mooy fi ko war a yón yónni ci àdduna bi ñu indi ko fi pour mu xam ban façon la boobu mooy rañaanam bu jëkk ba mu fa jógee ñu gàddayloo ko min makkata nufus ila madinati alqulub waaw boobu bokk na gàdd gàddaay foofa ca kaw la fa yàlla denc nafsiya te inna nafsa la amaratum bi suu moo tax yàlla gàddaay loo foofa mu dem madinatul qulub looloo tax fa alima ma fi qulubihim ca shajaratu ridwan waaw yàlla nag di wax nit ñi ni leen yooyu siira siira du ko jàngale dalika min amba il xayb nuxihi ilayk waaw lu lay tax <laughs> yonent bi kenn xamul lu mu doon comme bu ñu waxee transcodeur te fekk nubuwa moo nekk transcodeur bi donc code yooyu yëpp mu ngeeg yonent bi parce que moom mu nekk troisième personnage ci lawxul mahfuz moom yonent bi bu ngeen dee jàng ci alquran bi lu mu waxoon wa indahu mafatixu lxayb la yalamuha illa huwa wa yalamu ma fi lbirri walbaxr wa ma tasqutu min waraqatin illa yalamuha wala xabatin fi zulumaati alard wala raqbin wala yabisin illa fi kitaabin mubin ne kitaabun mubin boobu lan la am na ñu koy firee ni alquran déedéet kitaabun mubin du alquran mooy lawxul mahfum waaw waaw maanaam plateforme ba plateforme ba ba nga xam ni fa la malaaka yi di daje alqalamul aala di leen dicté directive yi jóge ci agenda bu sunu borom plateforme boobu mooy lawxul mahfuud bu mag bi écran yaa nga fa ku xëy xam nga sa service di nga dem ci écran bi gis liñ fa noté ci alqalamul aala waaw nga dem yóbbul sa waa service ñoo exécuté ci bi nee na awma ci lu dul rekk romb fa dégg dactylographie yi waaw machine yi di tapé ratatat ratatat tasarif al aqlaam fi tasarif al aqdaar waaw waaw nee naa fa waaye suñu cheikh mi xam li xew ni ko da ngay nëbbu rek ah. waaw waaw yeneen ci bi ni ko da ngay nëbbu rek waaw ah. mu ni ko xam naa bu dee taf nga fa sa nopp pour xam lu fa xew de dafa mel ni wa ka annaka sirrul akbar wa ka annaka al ujubatu al udma allati taxdau laha hadihi al asbab وتنقاد لها تلك المخادير فينطق من ذلك بلسان الغيب وكأن الغيب يتراءى له في كل حالات ويتصور له في كل مواقف loolu kenn mënu ko paase mënu ko xaw ma ndax danga sës sa nopp ci fa yàllay àddoo jëm ci sabab yi ak dogal yi wala yàlla daf cay topp sa bëgg-bëgg mu ne ko yaakaar naa yàlla daf cay topp sa bëgg-bëgg looloo tax pour nga wàcc lawxul mahfuz mu jóge ci écran bi ñëw ci bi ñu personnifié te mooy bi kulla shay'in ahsaynaahu fi imamin mubin waaw imamin mubin boobu beneen lawxul mahfuz la bu ñu moom ngeen di jàng ci seen taysir Maodo naan salli ala lawxika almahfuudi al ashrafi min kulli alxalaayiq ya rahmanu ya allah waaw waaw kon yeneen ci bi mooy beneen lawxul mahfuud bi et c'est normal parce que moo tax ñu bind jaam yi war na luy xew ñu informé ko pour buy intervenir mu xam ci lu muy intervenir waaw mu tax am na baat bu wolof di wax ku aj day bañ ku seenu kaw yàlla ni bokkuma ci ku aj day bañ ku seenu kaw yàlla nee na bokkuma ci ndax man mi ne afala na ila ibili kayfa xuliqat wa ila samaai kayfa rufiat mu ne bañu ma bañu ma ku seenu kaw xam nga lu ma bañ ku ma yeddu bañu ma ku seenu kaw mais li ma bañ mooy ku ma yeddu waaw wa inna kunna naqudu minha maqaacida lissamaa waaye fa man yastamic al aan yajid lahu shihaban rasada loolay tax yonent bi nag ci biir code yooyu le moo tax waxuma la wàllu nubuwa sax yaakaar na capitaine mu ngi leen koy jàngal ci iqra waaw di wax ni waxul waxul ni jàngal waaw koo xam ni laka zaatul ulum min alimi alxaybi wa minha li aadama al asmaau waaw looy jàngati mu ngi leen ko doon expliquer moo tax booy jàng ci iqra ba yegg ci allama al insana ma lam yaalam daa di koy firi rek ni moo jàngal nit lu mu xamul woon da daanu parce que du loolu man allama al insana bil imani bii ma lam yaalam waaw nit bi gëm ci yàlla li mu wër a gëm fa yàllay jaar ba mu xam lu mu xamul woon yàllaa ko xam waaye foog nga gëm ko nag waaw fattaqu llaha wa yuallimukum llah waaw jeex na moo tax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàllu nubuwa li ko ci yàlla defal dafa bare ndax code yooyu ñu la tudd ak échange bi ci am maa ngi ko wax benn nit mu ree ba bëgg dee dafa ñëw ni ma man day dama am benn dox buñ ma joxoon dox bi nag dama ko jàng li newoon sama soxla ma wax ko waaye ba léegi kenn wuyuwuma man ko dog bi bi nga ko jàngee kan moo ko recevoir moo ko libat di ma xool ñu ko xanaa dog kay ku koy jàng war nga am koo ko koo ko jox mun wax loolu nag di moom seetluwuma ko man ko voilà man ko parce bi ngay jàng dog bi booba baasitu baasitu moomeetul booba fégal na xaabidu moo moomee te bu xaabidu xasee ba moomee lu ñëw daf koy classé bu demee ba war a fégal nag da ko yàllay laaj dossier yi fi ñëw yan la mu soog a jël ya mu recevoir soog ko jox borom bi foofu la borom bi xam nag ndax moom lay chargé li ci aju wala basitu lay chargé li ci aju asma yëpp bu ci nekk ak c'est contraire mais bii kañ lay moome kañ lay fégal booboo jara seet waaw sama mbokk bi xaaj Mansour Sall waaw ah. dafa di waxtaan ak ak Pape Cheikh Sarr di jàng ñaanu yonent boobu bismillahi alladi la yadurru maa ismihi shay'un xam nga wax naa leen ko ci kër jëmb man leen boo ko dee jàng la yadurru maa ma shay'un ba noppi turam bi mu tudde taar ñëw taxaw looy def looy def moo tax xàmmee yooyu ñi rawante yépp foofu la ñuy rawante du naafile yu bari du julli yu bari du koor yu bari dégg gi ñuy dégg seen borom te xam fuñ koy jaar ci lañuy ñuy rawante waaw moo tax ma wax leen ko ci ni ñaan doo xaar ba soxla waaw da def ñaan bu nga xam ne lu jot waaw gis nga mu ngi mel ni voiture automatique boo xasee ba démarrer le reste moo koy defal boppam waaw noonu la yenn ti ñaan yi mel waaw bu ko defee seen genre code yooyu le maa ngi ciy waxtaan nag capitaine bërki démb ñu démb la sax démb ma di kon laaj ndax bokk yi dañu am xadaratul juma mu ne ma non je ne pas mu ne ko ah, ah ok dafa gisoon nit ñi taxaw noonu sax ma defe ni dañoo am xadaratul juma waaw hadratul juma ci yow mi min tariqa tijaan mais xabara ñoo am ñeen fukki xabara moo am xabara bu ci nekk ak tur bañ koy pare ne ci turu yàlla yi looloo tax Ibnul Farid wax la baat bi mu wax ni la am na ñoo xam ni amuñu bisu àjjuma bés yëpp bisu àjjuma la pour ñoom ndax dañ ciy def échange boo moomee ci ñii tey bu ëllëgee nga dem ci ñële mais du yépp la ñuy defee wazifa déedéet am na yu nga xam ni échange moo fay am kenn ku ne expérience yi nga def ci wàllu yàlla ak ca xaqiqa ba am ci résultat moom ngay présenté ca daje ba ñi ko amul woon jël ko waaw moo tax muy doy waar waaw bu ko defee ngay wër rek waaw di wër rek léeg-léeg nga dégg nitu yàlla boo xam ni danga ko doon dégg xamuloo ko ba ngeen gase waaw <laughs> la daloon xabis xoolal Xadir rek ni mu toll ak fi mu jaar ak Muusa yëpp te si benn nit nii rek mu nuyu ko ne ko assalaamu aleyka ya Xadir mu ne ko ah yow de ma waay foo ma xamee mu ne ko ci kaw ca xadara yeñ doon teew wala la xamee te moom xadir xàmmewu ko yàlla mooy defe noonu ku ne dina la may mais da ngay looloo tax suñu njaboot yi bopp yii du ñu jàpp mukk ni li ñuy am ci ñun lay jóge yëfu jaamur la ku mu neex mu jox ko waaw góor ga nga koy nettali ci waxtaanu Demba Diop nga xam ni kon moo sañee waxee nu ne ndax dafa wax ni Jabrail dem na bay tiitaru parce gis na ni yàlla ñi mu am yépp moom lay yónni ci ñoom nee nag affaire ba marqué kon nag ba mu commencé bëgg a nee na yàlla nag bëgg koo wàcce ca mu teg boppam nee na xëy rek bisu woo ko mu ñëw mu ko ñetti box ni ko gis nga box bu jëkk bële mu ni ko am mu ni ko xam-xam laa fa tëj demal nga wol ma ko ne Jibril daal ñëw ubbi box bi xam-xam génn mu ne ko kay wuyu sunu borom mun ko boo demee ni ko màllank dafa tiit sax màllank mu ne ko waaw ak ah, mu ñëw ci borom bi ni ko ah, xam-xam de woon naa ko nee moo lànk mu ne ko demal ci ñaareelu box bi ragal yàlla laa ko tëj nga wool ma ko mu ñëw ubbi ñaareelu box bi ragal yàlla ñëw taxaw mu ne ko kaw wuyu sax sunu borom ragal yàlla ni ko ma lànk mu ne xanaa ñii dañoo dof <laughs> daal di ñëw ci borom bi ni ko moom it de moo lànk nga mun ko demal ci ñetteelu box bi ah ndongo rek bàyyi ko noonu waaye ci ñetteelu box bi mu ne ko xel moo fa nekk wol ko nee na bi mu ñëwee mu ubbi ko xel taxaw mu ko kay wuyu sa borom xel génn naka la génn xam-xam génn ragal yàlla génn mu ni fu ngeen jëm yéen yéen waxoon ni lànk ngeen ñu ko eh yemal fi nga war a yem yàlla moo ñu waxoon ni bu ñu génnee te xel génnul ba noppi nee na mu soog a xam ni ndekete ak li ko yàlla sedd yépp wax ko lépp waaw mu xam boppam nag mu jéggi fa mu doon seenu boppam wàcc fa boppam waaw pour wax la waaw looluy tax waaw man kët sama xaram yaa ngi bëgg a ëpp waaw <laughs> waaw mujj gi sunu boroom am lu muy demande man ciy waxtaan ak capitaine démb rek mu ne am lu ñu miin di ko tudde al adab te mooy li ñoo tuddee discipline li gën a yéeme ja bi mooy discipline li muy rëy rëy rëy ci ñun ñëwul ci alquran parce que dog gi branche ci al ihsaan moo discipline kese kese kese rek dafa tuuti parce mën nga ko def nax nit mën na nekk caricature nga yaru yarulu te fekk yaruwuloo parce que li tax nga ci nax nit ñi mooy bëtu nit ñi ñoo koy xool mais bu dee ixsaan nit ñi duñ ko surveiller la koy surveiller mu nga ca kaw moo tax boo ci wàccee sa ànd rek li lay signaler signaler mu tax ixsaan mu ëpp doole ëdëb gis naa ci ñu ci doon soow ci waxtaan bi ñu def ci huit mars bi passé bi ma nettalee ni Serigne Cheikh dafa tooñ Sayyidatna Aïcha wax ne ku bari woon xam-xam la waaye ku reewoon la baatu reew boobu nag am na ñu ci wax lu ne foog nga xam réew lu muy firi parce réew bu dee ci borom personnalité mooy fierté waaw ku xam boppam ba kenn du ko yam mu fier ci boppam waaw loolu reewande la xamuloo mais am na ñu ko déggul nit ñiy soow di soow rek te ma wax leen ni leen jibril sax du ma waaw ndax ci yàlla lay jële jóge jële te mayit ci yàlla lay jële waaw wa innaka la tulaqqa alquran min ladun hakimin alim waaw ba tax na kon ixsaan boobu rek la yàllay ñaan nga fexe ba mu mëtalee ñi nga am waaye ki nga ciy jiital mooy sunu borom wa ahsin kama ahsana allahu ilayk yàlla nee na desee lu ma leen dara bu dee ci bind gi لقد خلقنا الإنسان في أحسن في أحسن تقويم seen bind def naa ca lu ca jaadu ba du ngeen jéppi seen bopp waaw seen jëmm ak seen melokaan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum bu ngeen xoolee seen bopp xool yeneen rab yi war a xam ne am na lu ma leen defal waaw waaw kon nag hal jazaa'u l ihsaani illa l ihsaan li ma daj ci yéen ba seen lépp jekk war ngeen a daj lu ni tollu bokk ba seen ànd ak man jekk yéen itam waaw waaw ñu ni ko àttan mu ne way jur yi wa bil walidayni ihsaanan waaw imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kasiira waaw way jur teggin kese kese doyul parce que mën nga ko ndax mais ixsaan li tax moo am solo mooy doo ko natt ci bi ñuy dund rek mais dinga ko natt ba bu ñu duggee ba meel faafir lana waliman min baynina nasabun min jihati tini aw fi dini allahu ba ca وسامحا والدينا والشيوخ ومن قد ولدوا وذوي الإسلام الله waaw ñu demee ba gisatoo leen nga beral leen ñaan man dem naa ci ba dootuma yem foofu fu ma fu ma romb armeel rek commencé bay tuyoon waaw ndax rek yéene goru jullit yépp am ci ngëneel bi waaw waaw du leen nax boog tuuti <laughs> teey ba ci nit yi sa ixsaan ak ñoom ma nga ci nooy waxee ñoom wa qulu linnaasi xusna waaw waxin bu jaar yoon te jaaru nga di ko waxee nit yi moo tax dañ ciy surveiller ba ciy surveiller sama bokki oustaz yile waaw waaw wa tabarakallahu waaw di xool seen émission yi waaw du may faral di xool sax ay télévision waaye bu ñu amee ñoom émission léeg may xool nu ñu waxee ba bu mujj bi oustaz Modou Fall bii waaw ah. waaw ma di ko suivre ci waxtaaninam waaw di suivre sama mbokk Mansour Diop bile waaw waaw ah. di ko suivre ci télévision Lamp Fall lu ma neex la parce que tiijaan nga bokk ci musarshidin ngay dem def interview ci Lamp Fall ce qui veut dire am na yiw goo xam ne ñépp a ko waaw waaw waaye ma xool question yi ngay posé ak façon bi nga koy posé ak ki lay tontu lu mu lay tontu waaw pour wax la ihsaan ci lu ne ba ci mbubb mi ngay sol waaw façon bi ngay sañsee sax ci ihsaan na bokk waaw Cheikh El Hadji Omar il Fouti moo ko wax hassin thiyaabaka mastata'ta fa innaha zeynu rijaali biha tu'azzu wa tukramu waaw Cheikh El Hadji Omar nee na booy dox ci pénc mi solul col gummi ngoo ko waa pénc ma waaw ndax dina tax ku la war a wekk wekk la waaw yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp bu ci nekk boo ko toppee du du jeex waaw mais bi ci ëpp doole mooy in hiya illa ihda al husnayayni إن هي إلا إحدى الحسنيين من حياة بشرف أو موت بشرف ihsaanu dund mu ngi ci booy dund nga dund ci honneur booy dee nga dee ci honneur mais dund goo xam ne bu ñu la suulee fàtte la mu lay xamal ni defoo ko dara waaw moo tax gis nga sunu borom waaw ok léeg-léeg mu tontu tontu bu nga xam ne tontu bi dafay rafet te ci sonn je capitaine mu ngi leen koy expliquer ci man ansaari ila allah qala alxawaariyuun naxnu ansaaru allah mos na gis mukk yàlla pour mu tontu ñi wax ni moo jur Isa dafa bàyyi Isa tontul boppam ci ñaari baat wasalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu ci ñaari baat yi ci la leere la affaire bi yàlla pare parce que yawma wulidtu bis bi ma juddoo kooku azaliya dañ la ci moom wa ma amutu bis bi may dee kiy dee abadiya dañ na ci moom te ku azali yaak abadiya dañ ci yow na mënoo bokk ak yàlla dara waaw lu jara seetaat la ci ñaari baat rek salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu jeex na waaw loolu moo tax ah dama waxoon sëriñ bi ni ko une heure rek laa fay def de waaye mel na ni mu ngi bëgg a ëpp waaw waaw bu ko defee kon nag dafa am lu arab yi di wax dañuy tudd ñaari baat di wax al asgarayn di wax al akbarayn al asgarayn liñ ci jublu ñoom mooy kàddu gu néew te njariñ la bare moom la ñu tudde al asxarayn lafzun qalilun wa maanan sharif bu fekkee ne al akbarayn la ñu ni lafzun kathir wa maanan kathif mooy wax ju bare te njëriñ la demewul noonu loolu mooy tax nag mu di ñu intéressé ci façon bi muy résumé cours yi parce man li nit ñuy wax duma ko déglu moom li muy wax rekk moo ma intéressé parce que moom moo ma fi bàyyi waaw turandoom am na ci moom cër waaye man la chargé ma entouré ko waaw wa tabarakallahu moo tax may ñaan nit ñi ñu préserver ko tuuti parce que baaxul waaw mag sax kenn du ko tiim wax lu ne rawatina ndaw lu nekk ci di def tarbiyaam waaw waxuma ko ndax moom rek de góor gi xaw na ma ci yóbbu laaxira dafa am bés ci gàmmu kursu ba fi ñu toog Mali Mbay bii yónnee ma benn note pour wane ni dafa am kilifa gu bëgg a yeewi ko pour ñu ñaanal ko góor gi ñu yeewi ko waaye ci papier bi ca kaw Malick Mbaye bind ci saxiba sumu saxiba sumu bu ñu ko xoolee ci diplomate yi mooy li ñoo tudde ñoom son altesse royale le prince héritier moom la ñoo tudd a sumo waaw lay bàyyi ko rek lay tardel way mais bu fekkee ni ci boroom xaqiqa yi la saxiba sumo mooy li ngeen di tudde son éminence rek waaw man pour man jàpp naa ni bu mujj boobu sax moo tax Malick bind loolu waaye ma gis góor gi naka la xool kayit gi rek kanam gi changé waaye waxul dara dafa continuer rek dane ah xam na ku kuy tàggoo xanaa ñu yeewi ko fa tabarakallahu daal di wax noonu mais ba gàmmu ga passé mu ni bàyyi ma sàmm wal ma mu sëf ma ñëw mu ni ma Moustapha mu ni ko am ah, mu ni ma wattul nit ñi man dama jaaxle sax ah, mu ni ko lu xew lu ni ma not boobu nga ma joxoon ci taabal bi te yóbbee ca saaxiba sumu lay bañ njaboot yi teel di jël yenn yi di la ko moomale te yaa ngi ci sa tarbiya pareeguloo rawatina bu fekkee ni sa kilifaa ngi ci kaw suuf waaw nga ni ma bu ko nangooti wax leen ko waaw pour wax la ni la ñun liibaruñu waaw bari na yu neex ci nit ñi te bu ko yégee rek tukkal àdduna waaw benn bis ñëw naa fekk ko muy xul te xul ma ni ko waa lan la mu tudd ma kenn ci famille bi mu ni ma diw laa gis mu ànd ak artiste sàngam ñu def photo ñu def ko ci journal bi mu ni ma waru ko def boo jógee nga wax ko ko parce ku ne da xam li nga moom ak li nga moomul waaw yu mel noonu du la ci bàyyil dara dara dara dara bis bu ne ak la mu lay wax waaw loolu mooy tax nag ñun itam dañuy bëgg rek pour aar ñi ñu am waaw ñu xam nañ ni yàlla ndegam liir wax nañ leen ko fii ci huit mars bi ndegam liir muy Isa ibnu Maryam moo mën a taxaw ci bersom ni inni abdullah atani al kitab wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kunt wane ni sagari njaam yi ñëw na waaw liir la keroog mu ngi impressionné capitaine sax ci bi ma laajee lu Mariam di def léegi bu xamuloon suite bi rek àdduna te mooy mu topp waxin bi rek ak kéemaan bi parce que lu jar a la yàlla yàlla du jommalaate yàlla kéemaan lay def kéemaan benn mu dimbale la nga concentré wu wala mu dimbale la nga réfléchir waaye bu fekkee ni jommalaate rek la nag bul xam foo jëm waaw moo tax j'ai bien aimé sama mbokku mbokk mi mbokku daara bi te oustaz Cheikh tudd ko léegi muy oustaz Adi Niass wa tabaarakallahu koo sant ci jom ji sam ko ci sant ko ci mbaax gi sant ko ci ñàkk kañaan gi waaw xasida yi mu def yëpp fa tabaarakallahu mais li mu wax yépp li ma ci gën a saf mooy ñaar yi mu bàkke mustarshidin li mu ni mustarshidin yi war ngeen sant yàlla ndax seen kilifa jàngal na leen yar na leen waaw mu ni ndax boo yaree nit te jàngaloo ko dof nga koy def boo jàngalee nit te yaruloo ko wuyu nga koy def te benn baaxu ci waaw mais ki la jàngal yar la nag moo lay xamal ni def na la nit bu nite waaw ma defe ni kon nag loolu moo ñu ci bàyyi moom mi daf koy déranger mu ma koy wax ni ma léegi boo gisee may tëju rek parce que dama dul bëgg ci yenn yi bëgguma nit ñi di am ci man accès lu ne ñu bëgg la koy indil sama gêne waaw ba tax na ko nag ngeen koy dimbale rek bañ di xaabaabal moom wax na leen ko ci kàddoom yële paase waaw dama dégg benn nit man dama tiit sax mu wax capitaine ni ko comme Maodo nee na alxulafaahul arbaa ñeenti xalifa yi ëllëg bu ñu weesoo moom moo leen di juróomeel moom Maodo moom mu ni capitaine kon nag yow yaa leen di juróom benneel waaw mën na nekk xamuloo mais ce n'est pas encore le moment ñu annoncé lu mel noonu parce que baaxul waaw moo tax xër yi nañ koy wàññi waaw bañ ci wax wax yu ëpp rawatina li ma li may tuddee dérapage calculé dérapage calculé baaxul waaw nit mën na def sax erreur de calcul mais mënees na ko comprendre mais dérapage calculé li muy jur waxuma la yow mais ki nga koy wax ci moom mën na ko perdre loolu bare waaw moo tax góor gi mas na ko wax ci benn waxtaanam ni di nga tagg sa kilifa ñu làpp ko tagg sa kilifa ñu làpp ko moom walla luñ ko waroon a jox dootuñu ko ko jox te la indee seen waxin yooyu le waaw ñoo tudde almaxwaat ya ca des yëpp waaw mu dellu ci li imam Samba Diop daan wax fu waay yegg waay yeggoon na te yeggul waaw moo tax rek di wattu tey def ndànk waaw ñun ñi ñëpp dama koy wax bés bu ne bu anniversaire bi day ñëw suma fit bi day yëf tërët parce que njaboot yi dañuy xër façon bu ne dañuy génne ci réseaux sociaux yi te ñun dañuy ragal ndax ñoom bu ñoom du dara te fekk na sunu kilifa yi ñu muy surveiller yëpp bërki démb rek laa ci mujjee gis baay Omar Samb li ma gën a jaaxal mooy kër gi ma nekkoon lu ko wax Baye Omar jaaxal na ma ñu fëgg bunt bi ma ubbi rek muy Baye Omar ma ne ko Baye Omar noo def ba xam kër gi mu ne ma ah daal ree ma ne ko waaw loo wut mu ne ma góor gi ma yónni ma ne ko lu mu wax mu ne ma mu ngay soow rek ma ngay soow rek lan la doon soow nag wax na ma ko mais du waxu fii concerné wu ma ñeneen la concerné waaw ni loolu la doon soow waaye ma ni Baye Omar boo demee nga ni ko lii muy soow mu ne ah ma ni ko am na ci part de responsabilité moom bu demee nga waxal ma ko pour wax la bu doon bii muy dund duma ko sañ mukk mais comme nekkatu fi nag léegi kenn toogul ca chaise ba ku dul man waaye itam waxuma ko pour tiitaru benn mag moo ñëw seet si ma ni ma dégg naa da tawat mu ne ko waaw mu ma bayo ba nga ñemee ko nag dootu fi jóg billaahi wa kitaabi bayo nga ñemee ko dootu fi jóg ma ni ko lu tax mu ni ma ndax góor gee fi toogoon li ñu lay sànni yépp moom mu di ko dékku comme léegi dem na nag mu nga ca bàmmeelam fa mu toogoon yaa fa toog ba yóbbu nga dékku yépp ci sa kaw la jëm waaw mu ne ma lu nar ñëw ci xale yi rek ci yow la jëm waaw pour wax la ni la dafa bari koo ñee te ñeewul boppam bu ko defee kon nag ñuy ñaan rek yéene yi kenn xamul nu mu toll waaye rek ñu bañ sawar làmmiñ ba mu jeex waaw di leen ñaanal ñoom ñëpp di rafetlu rek nag waaw yoo tolloog man nag ay wolof lañu wolof moom lu ne daf koy yàkkam ci waaw waaye di ñaan daal man moom laa gën a rafetlu waaw du tere nag cant am na jamono dara di xew nga sant ka la ko defal loolu aayul waaw waaye boo ca paree rek nga teg ca ñaan waaw bu ko defee rek nag gis naa ni moom sax dafay sonn léeg-léeg nit ñi intervenir mu jóg jël kàddu pour balayer li nit ñi wax waaw ndax xam ne rekk ku topp nit ñi du sotti waaw ah. bu ko defee rek ngeen di góorgóorlu di bàyyente xel di ñaanalante yàlla dañu nekk ci àdduna bu doy waar àdduna bu nga xam ni yàlla rek a xam lu xew te li góor gi waxoon ni réew moo xam ni màbb rekk a ca des ku yëngu yaa tooñ waaw bu ko defee kon nañ ñuy ñaanalante jàmm te ñaanalante yiw léeg-léeg di nga waxi nenn sax am ñu jàpp ni d'accord ñu ci ni nga waxee fekk li ngay wax ñi ci saal bi moomuñu ko ñi ngay waxal ñu nga toog ci seen palais wala toog ci seen château ngay wax ñoom fa ñu nekk waaw parce que am na loo xam ne fokk mu dugg seen nopp waaw loolu mooy tax waaw mooy la taxoon ma wax leen ni leen bukki bu dabee ponkal ca doxin bala waaw bu ko defee kon nag ñu góorlu rekk te bàyyante xel te kenn ku nekk loo mën a jàppale sa moroom nga jàppale ko moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu tariqa la moo xam ci wàllu politique la ñu nga gërëm sunu mbokk Cheikh Tidiane Youm bi nga xam ni moo yore parti pur waaw tabarakallahu ñu doon def seen congrès pour seet fii ñu jëm li ci lu mu ci mën a doon à minute dana wax ak man ma wax ko ca la ma ko cay wax waaw mu seq ko ñoom ko war a seqal waaw ak ñi mu am comme ay collaborateurs itam ñu bokk ak ñoom ci niveau coalition bi ñoom itam ak seen taxawaay ñu bokk ko ak ñoom waaw di masawu sunu mbokk waaw Ousmane Sonko waaw waaw fa tabarakallahu ah, coono yi mu daj jamono yii yëpp waxee nag yëf yi mu toll noonu wolof yi ñooy wax ni ku bëgg akara da ngay ñeme kaani waaw bu ko defee moom itam ak ñi ki des ñëpp xalifa Babacar Sall ak ñi ñu bokkal coalition bi yëpp ñu ngi leen di encouragé xëy na nag nit ñi danañu faral ku ne naan waaw Moustapha si moom ci la bokk mais kenn du ko gis lu ma fay wuti comme am naa ñu ma fa nekkal ba noppi ah? bi ci des mooy bu ma leen téyewul ci mystique du ñu yegg ci fii ba tax na kon nag ñu bàyyi ñun ñu féetewoo ci barke mag ñi rek comme ñe nee nañu ñu ngi def seen procès lundi procès appel bi ci niveau Sonko ak procès appel ci sunu waa PUR ñoom Massata Samb ak Mamadou Dian ñu bàyyi leen xel rek te ñu ñaan ci mbaaxu yàlla insha allah booy boo ñoom nag ñuy tëral jàmm loolu rek laa leen di wax waaw bu ko defee kon nag ah, mu ngi guddi te am na ñoo xam ni midi fi la leen fekk midi ba léegi ñu ngi toog ndeysaan nga bëgg am place rek fa tabaarakallaahu xam na ci ñoo xam ne nañu seen capitaine rek daanu waaw la des yëpp bal nañ ko nit yi waaw yàllaay def loolu bu ko defee rek ñu ciy sant yàlla waaw le ma tooñ chef de brigade waaw waaw léeg <laughs> ma tooñ Pape Cheikh ni ko Pape Cheikh mu ne ah ma ne ko dama dégg xàqataay bi waaw bu ko defee mu xàqataay beneen façon xàqataay waaw <laughs> ndeysaan waaye tabarkal la léeg-léeg damay mel ni ak ñoom ay moroom lañu waaw waaye du tere ñu xam li ma doon ci ñoom waaw tabarakallahu ah Serigne Mansour mooy seen papa ci wàllu famille li ma waxoon fii keroog rek ci ñoom oustaz Cheikh ak xalifa Babacar Sarr ñoom imam Cheikh Mbeng ak ñoom imam Moussa Gueye ak ñoom imam Cheikh Tidiane Niang ñooy seen wéyjur ci wàllu tarbiya waaw Moustapha Guèye bii waxuma Guèye de Gaye waaw du ma wax ni sax sama goro la parce que goro dafa tuuti waaw waaw ah, mooy borom këru soxna Fatima waaw mu bàyyi ma xel bàyyi njaboot di xel daf leen di tarbiyewu sax waaw te leen nag ma dégg ci biti am ñu koy tooñ waaw ñu ko tooñ naan moom daal dafa yaakaar ni soxna Fatima rek la gëm waaw ma ni ko ah, gëm sa jabar nag aayul waaw bu fekkee ni la nga yaakaar mu nga ca moom gëm ko aayul fa tabaarakallaahu waaw bu ko defee kon nag ah soxna Fatima mook soxna mook yaay ñoo nga ca waañ wa doon defar ndog yi ak sëdd yi pour gan ñi soxna Adja moo ñëw pour représenter leen ci waxtaan bi waaw fa tabaarakallaahu ñi ñu am ñëpp a ngi fi toog nag waaw maa ngi gis waa kër soxna Kiné Duudu waaw wa tabarakallahu waa kër soxna Kiné bu soxna Sufi daf may faral di ma yónnee ndaw jamono bu ne wax leen sëñ Moustapha ne ko fu mu toll nay wax amin rek waaw nay wax amin rek waaw ma ko xam naa ko fa tabarakallahu waaw kon nag yiw yi ñuy ñaan yal nañ ko yàlla boole ñun ñëpp waaw ah sunu bàyyu daayira yi ñu ngi fi maa ngi gis sëriñ Habib Kay mu ngi fi toog waaw ah ci ñi ñu fi dese ci bàyyu daayira la ñu bokk waaw ah yu daayira yi itam ñu ngi fi toog responsable yi moo xam ci niveau Moustarchidine la wala ci niveau Colisée de l'éveil la ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye msi tabarakallahu ñu ngi fi fa tabarakallahu ñi nga xam ni sax bokkuñu dayira ñoom ñëpp ñu ca bari bàyyi nañu seen lépp ñoo bokk ak gudd ci waaw comme ni ko oustaz Cheikh waxe sunu mbokki bopp yii ndeysaan waa kër jaamal yeeg sunu bàyyi ba ca Jurbel fa tabarakallahu te waa këram yépp ñëw nañu te noonu lañ ko daan defe ci jamono Serigne Cheikh ba léegi waaw tabarakallahu mag ñu baax ñëpp a ngi fi ne waaw ko defee kon nag ñu ñaanal ñëpp rek ba ñu amati jot bu ma ko capitaine ñaani mu laaj ma génn ma génn ni laylatul qadr bi bu ko ñaanul woon du ma génn waaw waaye moo ñaan pour ñu ñëw ah wéttalante ak njaboot yi ñu nangul ko ko waaw bu ko defee moom it ñu di ko ñaan mu ñaanal ñu ñu xam naa ni mu nga jot waaw yéen njaboot yeeg bàyyi ñëpp ngeen di ñu ñaanal xam naa léeg ñu ne paa bi màggat na waaw waaye rek paa di jéem sox tuuti tuuti waaw di leen gunge tuuti tuuti rek ci baaxu yàlla ak ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko defee rek ñu fas jom te taxaw parce que ku ne xam na ni genre tante yu mel nii def ko ci réew du góor gi laa gënoon a bëgg waaye nag li góor gi waxoon gantel moo gën juum am na yiw boo xam ne boo ko bëggee def te nar a indi leneen ci sa kër kilifa nga bàyyi ba jamono maye ko waaw wax naa leen ko fii ay yoon waaw ñaar benn bi soxna Sofi la ko yóbbante soxna Sofi ma gis ko ci gént mu ne ma góor gi nee na vitre yi ngeen def ci réew doom ngeen dindi ko ndax daf koy tàngal mu ne soxna su fi boo demee nga ne ko man defuma ko ma waaw bu ma ko fa defoon dinaa ko dindi mais defuma ko beneen bi mu yónnee ci keneen mu ñëw ni ma góor gi nee na niñ ko dencee neexu ko sa sañoon ñu dencaat ko ma xam ne loolu tuutiwul waaye maa ngi ciy xalaat lu ci ne waxtoom la am incha allah waaw bu ko defee kon nag ñu gën a taxaw rek ku nekk domaine ba nga mën a intervenir ne intervenir waaw parce que man amul dara lu ma jàpp ni dañ mu koy indil ba ma jàpp ni maa ko moom lu mu fi indi rek dama jàpp ni tarbiya bi moo ko moom waaw maam mi it loolu la gëm ci boppam ñi mu àndal di ay collaborateur am it loolu moo nekk ci seen bopp bu ko defee kon entourage yi nañ ko dimbalee ñu bàyyil ko xel loolu tey liggéeyee ci boobu cadre loolu rek laa bëggoon ñaan leen ko ah ma jox ko mu sànni ci kàddu yi muy mujj sànni joxe ñaan bu ñu ñaan ñu libéré parce que waxtaan yi du jeex te nit ñi it koor gi dafa xaw diis tuuti te bañu jëlee tàndarma ba léegi ñu ngi toog bu ko defee ñu libéré leen ah. ñoom ñu gunge ñu rek ñu daw duggaat ci biir daara ji xam naa ñi nekk ci mbedd mi nag ñu leen di ñeewante bu dee may na ma bu ñu génnee ñu taxaw ci buntu bi ndax dalal seen xel ñu def ko loolu rek laa doon ñaan ma jox ko comme kàddu gi incha allah waaw soog yëpp toog dafa mel ni ñun loolu ñu daal tey waaye mbégte lañ ci am ndax si dafa am loo wax sànq waaye ñun de si xam-xam gu ñu am moo xam lu tuuti la moo xam lu bëri la ci mbaaxu yàlla bu jógewul ci yow bugguñu si am na loo xam ni daan nañ ko wax ñun mag ñi bàyyiwuñ fi mission bi bàyyiwuñ ñu fi suñu cofeel ci yow ak sa bëgg-bëgg moo ñu fi bàyyi li ci des yëpp si bëgguñu ñu ngi ñaan yàlla nag ak mag ñu ñoo am yàlla ñu sax ci loolu ndax leneen jëriñu suñu àdduna ah, comme ni nga ko waxee guddi na ba pare nit ñi am na ñoo xam ne depuis sept ñoo ngi fi xëy ndeysaan sànq lay seen boobu ñoo ngi ci congrès bi ba ñuy soogu ubbi bunt yi nga gis mbokk yeeg xërte gi ñu àndal di dugg ci biir kër gi ba fël chaise yëpp sax nga xam ni loolu cofeel googu kilifaa ko moom ci njabootam ah xëy na xërte gi lañ xamul nuñ koy def waaye cofeel gi yàlla na sax ah gën a santaat yàlla rek ndax am na baat boo ñuy jàngaloon te mooy rafetu fekke yaakaar naa lii rafetu fekke mën na koo wees yàlla nañu ko yàlla mayaat ay at yu bari ñu sax ci ci loolu tamit incha allah ah xam naa kon xëy na am rek ci loo xam ne ci seen liggéey ñu wax ko nit ñi te mooy daara ji bi nga xam ne yaa joxe woon ndigal ñu war ko tàmbali xëy na sax daaw lañ amoon yéene tàmbali ko waaye nekkoon ci parfaire programme bi rek ba léegi sax ñoo ngi ci waaye doon wax ni rek gànnaaw koor gi xëy na bu ñu marqué benn pose rek may mbokk yi récupéré ci koor gi tuuti nañ tàmbali programme bi incha allah ah, xam naa lu jëm ci inscription yeeg yooyu danañ ko jaarale ci structure daayira bi ba ñi ko war a jot jot ko incha allah waaye nag ah alalu Tiwaawan kon nag kenn du si jiitu waa Tiwaawan incha allah kon nag ah mbokk yi xamee ko noonu. ah kon nag góor gi njaboot yaa ngi noonu est-ce sax baatu njaboot gi du ma ko tegee côté ne sa alal la ngi noonu ndax nag si lii yëpp yaa ko liggéey lii yëpp laa yaa ko liggéey si waaye nag am na loo xam ne moom ñoo ngi koy xuloog man boobu ba léegi waaye tey laa koy gën a wax sama góor gi sama góor gi la boo kenn xëccoog man góoram góoram la bu ko kenn xëccoog moom góoru keneen nag góoru keneen la bu ko kenn xëccoog moom ah maa ko maa ko res lu ci am nag attan naa ko ci barke mag ñi suñu cofee la toll noonu kon nag ah ku ñu ko nangul nangul nguñu ko ku ñu ko nangul wit nangul ñu ko waaye loolu am ah yan lañ yàlla saxal loolu ci ñun incha allah ah góor gi ñu ñaan te yeewi nit ñi bopp insha allah xam naa kon ñu defar jàng kon ci ndigalam ñu jàngaat fatiha juróom ñetti Quraysh falaxi ak naas ak salatu ala nabi bu waay man ñu ñaanalante ci te yeewee ko ba baneen insha allah bismillah